àndal ak yàlla àndal yàlla bul faale dara mu nekk sunu dars bu bees bu ñu war a fàttali sunu bopp fàttali ko mbokk jullit yi ne alquran def nu jàngal nu ànd ak yàlla mbokk yi ci yàlla ànd ak yàlla tabaraka mooy ak ànd am yàlla mooy am am gëm yàlla mooy gëm-gëm àddina bi ni mu toll la ca gën a tuuti ak la ca gën a rëy dara mu cee dem sans yàlla kon àddina bi li ci gën a tuuti gën cee rëy yépp mi ngi ànd ak yàlla waaye léeg nga dégg ay nit di tiitaru naan man diw laa àndal man diw laa gëm man diw laa bëgg léeg nga dégg kuy tiitaru naan man sama alal laa àndal faalewuma kenn léeg nga dégg kuy tiitaru naan man sama ndombal tànk laa faale faale wu ma kenn sama daraja laa faale moom laa àndal ànduma kenn léeg-léeg nga dégg ku ne sama askan ak sama xeet laa faale faale wu ma kenn ànduma kenn ku dul sama askan ak sama xeet ñii ñépp kenn ku nekk di wootewu ne ànd nag nangam te ànd gi ngay wootewu ne danga nga ànd ak diw wala danga nga ànd ak sa alal wala danga nga ànd ak sa askan wala danga nga ànd ak sa xeet wala danga nga ànd ak ki nga bëgg mbokk yi ànd gi yépp coono dong lay waral texee di lay indi tiitaange la lay jural ak ay njaqare ak ay naqar borom bi tabaraka wa taala jàngal nañu ci alquraan fala tujibuka amwaluhum wala awlaaduhum innama yuridu llahu li biha fi lxayaati dunya wa anfusuhum wa kaafiruun jàngal nañu ci alquraan mu ne waaye waaye yow jullit ñii di wootewu ne nangam lañ àndal bu ñu la yéem fala tujibuka amwaaluhum seen am am yi bum la yéem wala awlaaduhum seeni doom tamit bum la yéem alal jeeg doom yi bum la yéem bum la jaaxal bum la jommal yow jullit innama yuridu llahu li yuazibahum biha yàlla namm ci am am yi ne def leen cee nar a mbugal alal ji du leen teggil coono du leen teggil fitna du leen may jàmm lu dul coono rek lañ ciy jële doom yi kazalika li ñuy bari bari bari duñ leen déggal duñu jële ci ñoom njëriñ seeni jàngi du sotti ñu séyee du baax ndax yàlla moo leen ci mbugal ci àdduna borom bi ne moom yàlla moo bëgg innama yuridu llahu li yuazibahum biha fi lxayaati dunia yàlla moo namm ci am am yi mu leen may au mu jural leen jàmm yàlla nee na mbugal dong ci àdduna lañ ciy jële ëllëg yowmal xiyaam bu seen ruu yi génnee àdduna fekk ay yéeféer lañuy doon wa tazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun seeni ruu malaaka yi jël si ko fekk ba ñuy dem ci yàlla ay yéeféer lañu mbokk jullit yi képp ko ànd ànd ak bi nga ànd ak moom dana tas ba mu des ànduk yàlla kon kun ma allah wala tubaali àndal ak yàlla bul faale dara ànd goo am dina jeex illaa maayatullahi lu dul ànd ak yàlla fa innaha tajlibu saada ànd ak yàlla day indi texe ànd ak yàlla day indi ngërëm ànd ak yàlla day indi ruu gu dal ànd ak yàlla day indi mbégte ànd ak yàlla day indi teddaange ànd ak yàlla day ànd ak ndimbal mbokk jullit yi soo àndeek yàlla sa xel sa xel dal sa xol féex nga yëg ne anna allaha raadin anka yàlla de yow dalaa gërëm dara gënu ko màgg muñal tuuti ginnaaw jafe-jafe yomb yomb moo ci topp waxtu wu nekk yàlla ngi ciy defar ay mbir mbokk jullit yi àdduna mënta neex àllaaxira mënta neex lu dul jullit ànd ak yàlla kër gi mënta neex njaboot gi mënuñu laa déggal soxna si mënu laa déggal boroom kër gi mënu laa déggal lu dul ñu ànd ak yàlla dund àdduna du jag dund àllaaxira du neex illa ma allah lu dul ñu ànd ak yàlla yàlla rek hal alxayaatu illa maahu ndax mën nanoo dund sans yàlla hal al aish fi rihaabihi ndax mën nanoo dund ëllëg fu dul ci wetu yàlla hal asaada alxaqiqiya illa bayna yadayhi ndax texe dëgg-dëgg dina am ëllëg lu dul ci wetu yàlla lu dul ci kanamu yàlla mënuñoo am xéewal illa fi taatihi lu dul ñu topp ko moom yàlla wal iqbaalu alayhi ñu jublu ko moom yàlla ida kaana aksaru nnaas yatafaaxaruna bi maayati al uzama wal kubara bu fekkente ne nit ñi dañuy tiitaru ku nekk naan man ngand sàngam la àndal man président la àndal man procureur la àndal man gouverneur la àndal man commissaire laa àndal man xalifa général bi laa àndal man diw laa àndal man diw la àndal kon yow jullit bégal ne yow yaa ngi ànd ak yàlla te ku ànd ak yàlla texe ku ànd ak yàlla mucc ay nit a ngi di tiitaru ne ay ngand lañu àndal ñii di tiitaru ñene ñoom ñu siiw lañu àndal ñii di làqatu ci ñoom yittewoo seen mbir àdduna ñor leen nguur yitteel leen waaw kon yow mi nga xam ne yow yaa bëgg ànd ak yàlla yow kon lan moo la war am na ñoo xam ne seen nguur moo leen wor ànd ak nit ñi moo leen wor ñu bàyyi boroom nit ñi waaye fa inna ahlal imaani al uqalaa yataallaquuna bi maayati rabbihim wa mawlaahum ñi gëm yàlla dëgg-dëgg te am xel ñooñu seeni xel ak seeni xol yàlla rekk nga ciy fekk ndax yàllaay seen boroom yàllaay seen kilifa yàlla moo leen di teddal yàlla lañuy tiitaroo lépp lu ñu am xam nañ ne ñoom yàllaa yàlla leen ko may te ngëm-ngëm googu ñoom danañ ci wit ay meññeef yoo xamante ne day dalal seen xel ak seen xol seen bakkan dana dal dootuñu tiit dootuñu ragal mbokk jullit yi dund daal dëgg-dëgg mooy alxayaatu allah mooy mooy ànd ak yàlla ko am yàlla am nga lépp ku ñàkk yàlla amoo dara mu nekk sunu dars bu bees alquran dina ko jàngal naan ñu kun ma allah wala tubaali àndal ak yàlla bul faale dara loolu nekk dars bu njëkk asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.